On waajal nañ ko bu baax parce que quand même fois yi on avait quand même dit ak gàmmu beeg yooyu duñ fi nekk di mobiliser mais dañuy dañuy teeru gan yi jéem wut ku nekk li nga am def ko ci ndimbal pour nit ñi mën a gàmmu ak jàmm ak salaam loolu lañ loolu la ñuy préféré woon te dem parce que quand toujours dañ ni dañuy analyser ñi nekk ci élection yi di voter euh, du du du politiciens yi. xam nga toujours ñun ñu daan mobiliser mooy ñi nga xam ne ce sont nos militants politiques ñuy teeru xam nga loolu ça nous a montré que ñooñu c'était pas les vrais votants ñiy voté mooy ñu nekk ci kër yi. population bi duñ dem meeting duñu dem fenn fenn fenn fenn fenn fenn fenn mais vraiment dañuy toog seen kër di xool comportement yi nit ñi di xool aussi est-ce que ñu ngi leen di fàttaliku ñu ngi leen di gestu. waaw proximité bi waaw moo tax moo tax ñun dañu seete ñoo ñoo gën a bari. ñoo ñoo gën a bëri fuuf te loolu moo gën a rentable pour ñun moo tax cette année ci ñu ni ah dañuy mobiliser wu ku nekk li nga am nga dem ko def ci population yi ah jël jënd di vivre de premier ministre yi ñu soxla mooy lu mel ni ceeb lu mel ni ay matelas lu mel ni ay bassin lu mel ni ay drap lu mel ni ay denrées de première nécessité li ñuy soxla pour togg mooy ay tomates ay soble ay pomme de terre ak yooyu yëpp ñu joxe ko waaw loolu lañu def gis ngeen kër gi sànq ba léegi mu ngi fees ci démb ba léegi mi ngi fees del del del ku fi ñëw rek dinañ yëkkati au moins vingt cinq kilos de au moins ceeb au moins dëwlin au moins tomate au moins lal au moins matla ñu daal la koy daal di jox loolu moo gën a rentable te loolu ci ngay mën a amee parce que dañu jëm ci combat combat bi métti lañ jëm mooy 2024 te tegu semiñ la il faut ñu gagné ko ak jàmm ak salaam parce que quand même le Sénégal a besoin toujours du président Macky pour égaler programme yi nga xam ni moo fi nekk parce que programme yooyu moo ko égaler que programme yooyu mooy entre c'est entre euh, la paix la paix la paix la prospérité la paix la prospérité ah et la démocratie c'est entre le programme du président Macky Sall est la paix ah la prospérité la démocratie et l'émergence et entre maintenant l'incertitude, l'amalgame, dire de, de, de, des choses qui ne reposent sur rien, rien, rien, rien, rien, rien. C'est ça le problème. Chaque année, de mobiliser au moins 30 tonnes de riz, mobiliser au moins li ñëpp ñi ñëpp di soxla ci affaire gàmmu mu daal leen koy jox waaw parce que on est dans le social le président gis nga année bi année sociale la wax il faut être en alignement stratégique avec le président pour dem ci social bi parce que vraiment man je crois que bu ñu demee ci politiciens yi rek li ñu bëgg am duñ ko am quoi dañ dem ci population bi parce que ñoom ñoo gën a bari te ñoom ñooy voté. perspective yi président naal gis ngeen ko bu la nee naa la defal ñaari autoroute yu bees ñaari autoroute benn bu jaar ci ci ci route des Niayes ñëw fii Tivaouane jëm Ndar dem ak beneen bi nga xam ni day route dañ koy relier ak autoroute Touba bi jaar Thiénaba ba ñëw ñaari autoroute dina ñëw Tivaouane mu ne la dinaa la defal centre de formation technique ba nga xam ni que. Euh, ndongo daara yi nekk fii nga xam ni dañuy ñëw mokkal mën a bind sax kaamil mais du am métier donc fii la ñuy toog di def ay conférence ak yooyu mu ne ñooñu leen def une école des métiers te bu ko defee des métiers sur le sur les mines et tout ça di nga xam ni dañu mën capacité pour mën a liggéey donc ñaari perspective yooyu président wax na ko ak yeneen yi nga xam ni c'était pour le développement de Tivaouane loo xam ni tegoon nañ ko fi mooy l'assainissement gis ngeen ko presque onze milliards gis ngeen le projet de voirie yi nga xam ne mi ngi ko fii def gis ngeen la rocade bi nga xam ne léegi dafa wër Tivaouane nga xam ne Tivaouane dañ ko ceinturer mu am quatre portes d'entrée benn porte d'entrée venant de Dakar benn porte d'entrée venant de Saint-Louis benn porte venant de Mboro ak benn koy def ci rocade de 30 mètres de largeur ñu defar beneen rocade bu gën a après ñu defar beneen rocade bu ko defee euh, mosquée bi day nekk centralité de Dakar mu am ay perpendiculaires yu ñëw ci mosquée bi bu ko defee Tivaouane dafay doon une ville moderne une ville bi nga xam ne économiquement viable bi nga xam ne dina créer de la prospérité. joxe naa sama contribution bu rëy mais contribution yooyu nag man bëgguma di ko wax dama dem déposer banque islamique une grosse somme ñëw jël reçu bi ma daal di koy jox ñi nga xam ne ñoo koy toppatoo xalif bi ah vraiment damay digle aussi chaque fois bu ma amee lu doon ma dem déposer directement ci compte bi parce que loolu moom boo koy def soxla woo ci publicité soxlawoo ci lépp quoi de a ouvert un bi nga xam ne banque islamique boo demee da ngay déposé mais li may ñaan population bi rek mooy que dañu bëgg mu teel a pare parce que dañu bëgg euh, suñu xalif sëñ kër Sy Mansour yàlla na ko yàlla may wér-gu-yaram bokk santé mu fekke lépp te tal ko te lii yëpp mu inauguré ko mu fekke ko moo tax dama bëgg ñëpp accéléré ñëpp war jàpp ñu ngi jaay ay pins 5000 pins yooyu la ñu bëgg population bi yëpp jàpp ci di ko jënd boo ko jëndee dina accéléré vraiment finalisation mosque bi waaw presque gros bi pare na ñu finaliser ko muy une mosquée moderne boo xam ne si autonome en énergie énergie solaire la ak yooyu yëpp donc ñu mën a énergie propre et tout ça ñu mën ko paree rapidement donc na ci ñëpp jàpp xëy bu ñu dara piti bi cinq mille rek lay jar donc ñëpp mën tey ja jàpp pour que affaire bi gaaw fi ma nekk aussi Saint-Ère am na waa Tivaouane ñu bari yoo xam ne jël naa leen fa donc man vraiment li ñu ma joxagul moom ku créer 80 emplois bi nga nekkee ministre des jeunes ki joxe cent 150 permis donc cinquante potentiel emploi la ah vraiment am ñoo xam ne jël naa leen seen vraiment bu ñëpp defoon ni man def naa président du jaxle ci affaire emploi gërëm di ñaanal ñi ñëw gàmm yëpp yàlla defal leen jàmm ñu ñëw ak jàmm dem ak jàmm te li ñuy ñaan li nga xam ne ñaan nañ ko tuyaawoon yàlla defal leen ko ak jàmm ak salaam yàlla def jàmm ci Sénégal ak xéewal bu ñëpp xaj loolu moo loolu moo am teraanga di di woowaat sama moroomu politiciens yi nga xam ne dañu bëgg a dimbali président Macky Sall ma wax leen ni ay tertu yeeg yooyu amatul sens li am sens mooy ñu dugg ci population bi wax ak ñoom euh, jéem a xool seen seen seen besoin ak seen seen besoin ñu ñu góorgóorlu ci parce que ñii voté c'est pas les politiciens politiciens yu bari sax ñi ci gën a xumb militants yi ci gën a xumb boo boo demee bu boo demee ba jour vote bi nga ne kaale voté ñu naan ma sama carte d'identité ni ci bind na na na na na kii sëñ see carte d'identité ne ne ne votant donc ah dañuy wuyu téléphone di teg parce que dañuy wuyu ñu leen di woo parce que ça ne sert à rien ay poste bu ñu la jox mbubb bu ñu la solal rek dañ la koy sumbil boo wuyuwul téléphone yi nag bu ñu sumbil la ko bu ñu sumbil la ko boo toogee xam nga nga ñëw ci kër ministre bu amul sax garde fii si am nga garde amul sax kenn ku fi garde ku mu neex dugg ku mu neex génn fu la neex toog donc amul problème loolu la bu ngeen bëggee bu ngeen jibb bu ngeen bëggee yéeg daal boo bëggee yéeg te yàlla mooy yéegi nit da ngay wàcce sa bopp ndax ñu jéem laa yéegi dégg nga loolu laa ci doon wax leen tàggu di ñaanal ñëpp ah di sant ñëpp di sant senegal yëpp di ñaanal ñëpp gudd fan wér sàkk sutura ak teraanga bu nga xam ne ñu leen yaakaar xaj yaakaar dafa dafa dafa bëri moo tax ñu ni yàlla na ñàkk a ci waaju baax waaju baax rek ku baax rek yàlla na yàlla dimbali. may la loo suturloo may la li nga xam ne nit ñi yaakaaral na ko jërëjëf merci.